di sant euh, son excellence monsieur Macky Sall président de la république du Sénégal parce que mbir mi man de xam naa ni euh, lu ko yitteeloon la mu jaraloon ko lu ne. amaana yenn tardement yi sax ci suñu liggéey la ñun ci wàllu technique waaye itam ci euh, seet yenn yi daal pour bu bëgg mu jaar yoon waaye bu doon moom rek la ci saasa lañ koy def. ñu koy sant bu baax parce que tey ci ay instruction yu dëgër maanaam yoo xam ne mënuñ ko wër la ñu la taxaw pour mu Euh, capacité koom-koom gi nga xam ne moom la laaj pour que liggéey bi mën a ant tey yàlla def ñu def li ñu naan appel d'offre international pour mën a am ñi ñi gën a xarañ ci wàll wi. Euh, entreprise bi ne wax nañ leen ne lañ ci ay travaux maritimes ñooy ñooy jiitu ci Chine euh, jox nañ lay seen i référence yu takku la pour que tey ñu mën ñu defal liggéey bi ci ñetti weer ak genn wàll. donc loolu dañ ci sant yàlla bu baax moo tax it li mel ni mënuñu ko woon xaatim fii rek ci ministère bi. te waxuñu ministre euh, Mansour Faye euh, maire de Saint-Louis bi nga xam ne boobu ba léegi amul occasion bu mu raté te soññuñu ci mbir mi euh, moom ak ay acteurs am ak population ñu ñëw fekke ko parce que jàpp naa ni lii lu historique la. liggéey bi li nekk ci contrat bi mooy ñetti weer ak genn wal maanaam bu ñu joxee entreprise bi li ñuy wax ordre service ca lay tàmbalee ci ñetti weer ak genn wàll war na pare liggéey ba kon loolu dinañ ko ci ñaax danañ ko ci topp. wax naa sax dinañ am sax benn commité boo xam ne dañ ci dugal mairie bi dugal ci acteurs yi parce que acteurs yi am na solo seen xam-xam jaruta xeeb euh, ak technicien ministère bi pour ñu fexe daal ba liggéey ba mucc ay koom-koom bi nag juróom-ñaari milliards la ñaar téeméer ak li ci tegu ci million moom la moom la président nangu jël ci budget consolidé d'investissement bu Sénégal dugal ko ci. acte bi nga xam ne tey ministre de la pêche posé na ko signé contrat bi ak entreprise bi. pour ñu mën a def liggéey bi nga xam ni mooy tax doomu ndar yëpp maanaam mën a tëdd nelaw ci jàmm loolu dama ko ci sant bu baax di gërëm. 2003 am décision boo xam malheureuse jëloon nañ ko pour yaakaar ni dañuy protéger Saint-Louis contre inondation yi waaye mu nekk décision bu am ay conséquences yu garaaw ci population bi indi ci ay jëy metti ay ñetti téeméer nit lu mu néew néew. ñàkk seen bakkan tey jii nag signature bi ñu signé pour liggéey bi tàmbali fi léegi ay semaine yi néew dana tax maanaam képp ku dëkk Guet-Ndar wala képp ku dëkk dugg Ndar sa xel dal sa fit dal liggéey bi gën a gën a yokk te population bi daañu gën a kontaan parce que lii moo doon débétu Guet-Ndar soo yow duggee Guet-Ndar Belba la ñuy wax bu fa président ñëwee ñu ne ko Belba bu fa maire bi ñëwee ñu ni ko bëlbël maire baa fa dëkk chaque jour bëlbël bu fa ministre bi ñëwee ñu ni ko bëlbël léegi nag problème bëlbël macha allah dana réglé wu te suñu borom jaarale ko ci loxo ministre la pêche Alioune Ndoye donc dañ koy gërëm baax di ko sant di wax nag acteurs yi nañu accompagner le ministre de la pêche ci liggéey bi ak ci taxawaay bi pour que liggéey bu mu tàmbalee mu mën a tàmbale ci jàmm bisimilahi rahmaani rahim jeex ci alhamdulilahi rabil alamin